kaay déposé neen li ben exception d'inconstitutionnalité exactement euh, jëmale si wàllu wunu mel parce que dans daal japonais conscient ni constitution bi respecté et que ek li nga à qui est ak ak yelleefu Ousmane Sonko donc daal c'est salfaañe si kanam à quoi le ko n'a donc mi ngi noonu mu bien le point de voir ne itam doon nañ ko daal euh, par rapport rebondissement bi à xam ne amna si euh, vous da li que maudit mire n'y a li que maudit justement euh, wàllu woowu noonu jëm si mbiru ki nga xam nekk mu di Mame ak ki nga xam nekk mu di Sonko euh, donc li nga xam nekk mu la Cour suprême mu daal di koy convoqué waat li nga xam nekk mu le 4 janvier euh, pour daal di vidéo boobu dañ nga xam nekk mu dossier aju woon jëmale si wàllug diffamation ak wàllug injure publique ndaxte ki nga xam nekk mu di Mame Mbaye Niang jàpp Ousmane Sonko dafa daal yak yàq deram publiquement mo waraloon nak mu ne ko bëgg daal di setal dañ si daal di ñëwaat si nu mu gën yaato inshallah ak d'autres révélations peut être bala bobu on aura d' autres xam ne mu di rebondissement allant dans ce sens exactement alors ni dal di yegg ki nga xam ne mu euh, Barthélemy Diaz Barth nak fa nga xam ne itam mooy zone Cour suprême lu yees am na bobu non parce que euh, wiijuwul li nga xam nekk moo sa convocation convoqué woon nañ ko tey pour dañ daaj na wiiji li nga xam nekk moo di yoon ak wàllu yoonal Barthélemy Diaz n'a pas pu finalement déférer à sa convocation maanaam ñëwul li nga que nekk moo di ji ak walu et je pense que euh, euh, c'était déjà prémédité xamone nañ que Barth du ñëw euh, pour la li nga xamné que modi mais quand même aujourd'hui il y a une influence policière yi nga xam ni itam ña fa nga xam itam moo di justement cour suprême ni daal di war a mën di taxawal ki nga xamné que modi Barthélémy Dias alors Barth nak bob ba sénégalais yi ak aussi li nga xamné que modi les chroniqueurs sàkkoo neen Euh, pour mu dem wujj li na xam nekk moo di yoon ak wàllu yoonal parce que yàgg na fee toog ni Ousmane Sonko na dem wujj li nga xam nekk moo di yoon te itam dëkk bi dara du fi xew exactement alors Arfan euh, Barth demul euh, yónneewul peut-être ay avocat ñoo dem exactement alors lan daal si lan daal di war mën a jàpp par rapport ak li na xam ne itam doon na ko ndax ne Ousmane Sonko yoon ak wàllu yoonal tey jii kenn gisu ko démb sax kilifa mu ko doon rappelé si plateau digg benn. non xam nga sëñ Fallou Barthélemy Nous avons du dem wuy ji. Hmm. parce que amuñu amuñu amuñu luñu bet hmm. Barthélemy moo ci conférence am wako publiquement devant tout le monde ne man que ma dem ci kenn pour mu ñew bu len parce que man wuyu man dewuma cour suprême donc bu sama hmm. conférence am donc bu nakul luñu parce que il l'a dit dafa ne Ndakaar way wala ñu ko sob bu len ñew sama kër bu len sonal sen bop ñaan na len bu len ñew sama kër parce que man Barthélemy man wuyu jiwu ma Cour suprême ben dossier bo xam te moom mooy def analyse am après mu pare ci bu fekkee day confirmer donc cour d'appel lu mu lu mu juger wala da koy casser donc Barthélemy aujourd'hui il a deux possibilités soit ñu casser donc la décision de la cour d'appel hmm ou bien la Cour suprême confirme la Cour d'appel. Dans ce cas, vous confirmez la Cour d'appel, Barthélemy, il va perdre son mandat de député. Mom, hmm. hmm. Contrairement à ce qu'il a dit que Mom doit perdre parce que oui, son suppliant Madiop Diop qui va venir. Mais il faut ministre le ministre de la Oui, parce que c'est un acte criminel. C'est un acte, un acte criminel. Un acte criminel, nous avons un décès acte criminel la ñu wax condamné sa signature sa signature n'est plus valable est-ce que xam nga sa signature non seulement il perd son mandat de député mais sa signature en tant que député n'est plus valable sa signature n'est plus valable Barthélemy mo la sais xam attends xam perdre la mairie de Dakar la perdre ça c'est clair. perdre dafa ne mënu ko perdre hmm. parce que faut la sikkandikoo parce que dafa le code des collectivités territoriales moko ko sauvé ok là c'est clair dafa le loolu ok j'espère que va garder le poste le poste de la mairie de Dakar j'espère que parce que man je n'ai rien contre lui, Je n'ai rien contre lui. maintenant S'agissant de la condamnation de Barthélémy Diaz. mais balaa ñoo exactement si fond bi sur la forme exactement ñu bëri yàggoon nañ que ni yàgg na ne Ousmane Sonko mu dem wéji li nga xam ne que mu yoon ak wàllu yoonal Sénégalais tey ñu ko pour mu def le même exactement. peut-être ñoom dañoo woro ak seen lu ñu doon wax ni Ousmane Sonko na dem wuy ji na dem wuy ji depuis l'affaire de Adji Sarr bu fekkee mom deful dara lan ana lu muy daw tay mu ngi ni il n'est pas le seul ah Barthélémy xam ñu bari taxo na ñu fi di nan Ousmane Sonko ou yoon Ousmane Sonko gemul, justice Ousmane Sonko des saga des saga, des saga, magistrat ana parce que c'est vrai une il faut que nous rappeler touti. N'yom, Moustapha ana ñooñu ana taxaw di Sonko ana pourquoi pour autorité, respecter les décisions de justice bu faites tey yoon jox na verdict na que Ousmane Sonko nañ ko réintégrer ci fichier la pourquoi ñom gennuñu pour né autorités yi respecté justice Sénégal respecter len magistrat yi parce que ay magistrat ñoo juger anañ naa fekk yooyu il faut que ñu ñoo wax ci li bala ñu ñoo ci Barthélemy wuy ji na wala wuy jiwul ñooñu nañu àddu ci li ba paré ni que nañu sakku ci autorité pour ñu respecter les décisions de justice bu n'a naa ñu xam nga Sénégal xam nga Serigne Fallou Sénégal dafa bëri dafa bëri de faux il y a tellement de faux dans ce pays il y a tellement de faux il y a des gens qui incarnent des choses où yo xamante ne ñu ils ne sont pas dans la réalité lu ñuy incarner doonuñu ko hmm. doonuñu ko hmm xam boy wax costume cravate di wax bay xiixat way force restera à la loi way patati patati on est dans un pays de droit xam kep képp ku wàccoo ak yo yoon jeuflanté ak yow maintenant maintenant c'est bien beau de dire tous ces sermons là de sermonter de de dire tout ce que tu veux di wax sa di wax lula ne maintenant ñu ngi lay inviter nga ñëw wax ci li bu fekkee ay magistrats jugé nañu jël perdre toute une journée du juger dans un tribunal qui s'appelle le tribunal des grandes instances hors classe de Dakar ba le juge une décision administration taxaw bientôt ça va faire 10 jours nous ne respecter les décisions de justice ana nañu nous addu ci nañu donc Barthélemy suñu nous ci kaawam il faut que Mohamed xam ni le cercle le monde c'est un monde planétaire qui tourne il y a une citation qui dit que chacun à son tour c'est le coiffeur. Mbax baxam ndax une fateliku citation mm, bobu. Mm, mm. Chacun à son tour c'est le coiffeur. Aujourd'hui c'est Barthélemy, c'est son tour c'est le coiffeur. Ama Ousmane Sonko daanona am fi ki ñu ne dañ nañuy wuy ji ñom sax Ousmane Sonko mo len tané. Tu sais pourquoi? Ousmane Sonko dans na départ. ñu toj ay otoom. diko diko bunkeriser mais taxul ci ay dossier yo xamante il pouvait même rester chez lui. et ni ne diffamation bu la neexee mën nga tok sa kër. Mm. ne sa avocat et dem leen représenter ma ci ci tribunal bi. Mm. mais malgré le dossier de diffamation ak Mame Ousmane mm. Sonko a subi n'importe quelle agression. ci dossier boobu ñaata yoon lañu taju Ousmane Sonko otoom hmm. ñaata yoon lañu ñuy jëb nañu japp ay garde corps-am yóbbu ay ay ay ay brigade tentative d'assassinat bi bu mu doon ñaata yoon nañu ko supposé superger le liquide là bu ñuy ne toxique hmm. mais dans un dossier de diffamation ci dossier de diffamation ñom ñuy taw dina Ousmane Sonko na dem wuy Ousmane Sonko da don sol dàllam di dem wuy ñukoy ñu ñukoy baare ay lacrymogène hmm mu du ko canaliser ko dougal ko ci tunnel simbe djoun mm. diko lacrymogène ba tunnel bi fess yëpp lacrymogène ñun ñi ah, ñun ñi journaliste dundoo nañu ko ñu ne xam man lima lay wax ni waxulo ñuma ma ko man ma dem travail sur le terrain diko gis yow mi yow yow yow yow tu peux me prendre en témoin mm. quand il était là tu fais le euh, euh, Sénégal 5 TV faisait le direct au moment où nous nous nous les autres journalistes de 5 TV on était on était sur le terrain mm. dinaanandoo a ay lacrymogène avec Ousmane Sonko dinaanandoo ay lacrymosène avec Ousmane Sonko dans dans un dossier de diffamation ñu avons ñu biir tunnel ça le tunnel Soumbédioune ak lacrymogène ñun sa journaliste yi nous en noy. dans un dossier de diffamation laa lay wax nii de mm. aujourd'hui Barthélémy il est cité dans un dossier de de de crime mm. parce que dañu il y a mort d'homme mu taxaw ne du ma wuy ji du madame avocat am yi dem moom hmm. dans un dossier de crime. Hmm. xam nga bu fekkee dossier diffamation dans ce cas il faut rester sur lui et qu'il est représenté par ses avocats mais non un dossier de crime waxuñu Barthélemy moo rey de mais il est cité dans un dossier criminel nit amna nit ku faatu même si il soutient que c'est un nervi bu pour raiko, ko voilà du indemniser nervi moom moo ko avec cette arrogance mom du indemniser un nervi. 20 20 millions C'est ko yoon waxoon. D'accord. Vous faites que Wadi bu faites que nervi la. Hmm. bu que Ndiaga Diouf bu muy wax ni nervi la mais Wadi Fatuna, il faut respecter son âme. L'islam. sa mémoire il faut respecter sa mémoire. même vous faites nervi la le dossier a fait bientôt 12 ans il a fait 12 ans parce que depuis 2011 là. Le dossier a fait 12 ans. Hmm. mais Ndiaga Diouf faatu na mais c'est mën c'est seetal sa der Barthélémy médias. mais bul ne woy nervi tu continues mais il a il a une famille. il a une famille qui est là. Il persiste pas pour à ce mot. Ce mot, nervi, oui, ben nervi. Mais le gars, même si vous faites nervi là, hmm. pour le repos de son âme, mais rafetoulou, d'ailleurs, nit bu fato, même bo bu faites que hamoko, voilà que, warmalko. Mais pour continuer de soutenir, oui, de m'indemniser nervi avec cette arrogance je ne l'attends pas ci kilifa boo xamante yow da nga ne yow ndaanaan nga ci politique da nga ne yow yàgg nga ci politique yow politique nga pas d'accord mais lii est homme d'état ces de personnes la ñuy homme d'état au Sénégal des gens qui yoo xamante ne dañuy togg wone seen arrogance mm. devant les caméras devant les caméras di wone seen arrogance je n'ai rien contre Barthélémy Diaz moom moo def benn affaire boo xamante ne lu ne fang ñu gis ko ñun dañ koy interpréter je ne suis pas d'accord quand il dit Mandouma indemniser un nervi. Vous faites que doit indemniser, nel douma indemniser ne fatna. Douma ko enali utel benen tour parce que pour le repos de son âme warmal ko. alors maintenant mais alors mais mhm. mais amane bobu non wala mhm. kon sax lim wara jox ki n'a que euh, famille